asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare bu baax ñu di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba wu matale ko te ñu ànd ko ak moom ñu am nag tawféexi jataayook Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khader yor kàddoom jublu gi nak moy xam ngeen ne alarba ji nga xamanteni moy wara doon ben fan wala ñaari fan ci tam xarit atum jinné ñenti témèr ak ñen fuk ak ñett ci ati gàddaay yi wara deppok inshallah fukki fan ak ben ci wéru août 2021 Cheikh mohamoudou muntaha dafa joxe ndigalul njangum xasida mu yaatu di bis buñu jaglél jagleel Serigne Touba yi mu dalé ci jumaaji ak liko wër ba ci mbolim pénc yi nga xamni ne yëpp moo nekk ci dëkk bu tedd bi di Touba ni mu ko baxo defé rek lépp ngir dellu ci suñu borom ak ñaan ak fàttaliku li nga xamanteni moy mooy ndigalu Serigne Touba. loolu waral ñu tew fi ak Serigne Cheikh Bassirou mbak ibnu Serigne Abdou Khadr mo am kàddu yo xamanteni ni dana ko yëkëti jëm ci bokki talibi yëpp ak fuñu mëna nek ci ndigal lolé nga xamni mi ngi bayiko ci Cheikh Mouhamadou muntaha mbake xalif général des Mourides. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin بوكو جلدي بوكو تربي العالم الإسلامي بيب نيجي لين دي نيو الشيخ محمود المنتخى الخليفة العام للطريقة المريدية حفظه الله تعالى ورعاه وأيده وصاد من نصره دي نيو بوك جلدي بيب نيو بوك الإسلامي دي نيو بوك تربي مريدي يعني خمنا ñoom la sañ digal sañ leen a tere ni ko kilifa bu jëkkee daa waxe rawat na Cheikh Saliou Mbacké di woote ci woote kàddu yu gat ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadou taxa jox na ko ndigal daaira Hizbut Tarqiyyah teg lépp loo xam ne jëm na ci wàllu organisation ci njàng mi nga xam ne sëriñ bi sant na santaane na ko muy bis bi jëkk ci at mi incha allah bu àndee dogalu yàlla euh, wax ne ab yéeg-yéeg la diggam ak boromam ab yéeg-yéeg la diggam ak Serigne loolu nag kon ab taalibe moom lay wartee fa mooy bu ndigalu Serigne bi duggee rek mu bañ mu dëgmal ko rek ngir xam ne loolu mooy li koy jëriñ. وما هو الشلب الاختياري لحسن ظنه بلا إنكاره وترك الاعتراض مطلقا ولو ببات عليه فيما قدره kon loolu mooy lii rek nga xam ne sant na fa ñëpp mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu xaside yi ngir ngeen xam ne ci bi Tabaski gi des ñetti fan. altine ji nga xam ne ci la ko sëriñ bi jàpp ñu jàng ci alxuraan. ci jumaa ji ak ci jàkk yëpp nu mu ko santaane moom ñu def ko ci mbooleem foo xam ne ak jullit a ngi fa rawatina foo xam ne taalibu Serigne Touba ga fa ngir seet euh, digliwaat bis bii wax ne ak ak yëg-yëg la ak teewlu suñ diggee Serigne bi Serigne Touba kon nag loolu la Serigne bi daa wax jëw di ñëw Fati da def. bu noppee bu ko nee fas leen ci fas leen ci du ngeen bëgg ñu ne ko mbàkke nañ bàyyi nga fasal ñu ndax ñun bu ñu fasee dana am lu ñu fàtte te yow sax fas day gën a mat kon ñun li ñu ci war rek mooy jëfe ndigal li te bàyyi ko mu fasal boppam te xam ne bu fasee rek ñëpp dañ ci biir kon noonu moo ko rek fas yéene ñëpp ni mu ko diglee xam naa ñoom danañ ko gën a leeralaat ci penc yi nga xam ne fépp foo xam ne penc nga fa ñu yaatal ko fa. waaye rawatina ci pencum jumaa ji ak li ko wër loolu noonu la ko sëriñ bi santaane te wax na ma it ne gëm na ne bu ñu ko defee itam dana indi jàmm moo ko wax ci làmmiñam dana indi jàmm ci àdduna si dana indi jàmm ci réew mi tawat jiit it suñ boom danañu ko saafaral màggalu Tuubaa gi ñu dégmal itam yàlla mën nañu caa yóbbu ci jàmm ñu génn ci ak jàmm te lañ cee séentu ak lañ cee ragal bañ lañ ci séntu ñu am ko ca te lañ cee ragal ñu bañ ko ca am loolu moo ko ci laam ñoom kon nag lu weesu rek fas yéene ci eh, soññ ñëpp rek ñoo xam ne ndigalu sëriñ bi la te eh, sëriñ moom ndigalam ci lañu jëriñoo kon dañ ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér xam ngeen ne eh, kuréel xaside yi kenn mënu ko tudd te tuddoo sëriñ Hamza dum sëriñ Soxibu ndax yitt jëm ci ak taxawaayam bi ñu di ko ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la soobu di ko liggéeyal yàlla na ko ci gerte gën a gertanu gën ko ci defal ndam defal na ko ci ndam ba noppi sa waaye yàlla na yàgg yàgg ko taxaw yàgg ko ànd ak ñoom yàgg ko ànd ak mboolem kuréel xasida yëpp. yéen ñi mu ko teg ci seen loxo itam ngeen xam ne Serigne Touba moom saa su la santee dara rek ndam laa nga ci wet gi ndax bu la ko santee rek moom ndam la ñuy ànd ndax waxoon na ko ci làmmiñam ne xam ngeen xam ngeen nu may xamee li ma leen digal bi xam def ngeen ko déet. ñu ne ko déedéet Mbàkke mu ne waxtu ma sante nit lëf day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigale mu dëkk moom mu ne bu jëfewu ndigale day dellu si waat dama xamal ne dem na waaye amu fu ma ne kon nañ xam ne luñ ci jëf rek eh, pay ci loxo sëñ bi la ne te dana àgg ci jëf dana àgg pay ci eh, tuyaaba ji ko ko jëf kon na ngir bañ a guddal ndax comme ab woote la ñu àgg ñaan ñu àgg ci ak te day day ceeg tawféex te def ko ni ko sëriñ bi bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu